Eh, Ousmane Sonko dafa kenn xamul la assignation à résidence la eh, kenn xamul la la en tout cas son domicile est barricadé boo waxtaanee ak yenn nitu yoon yi ñu ne eh, mënuñu ko tuddee assignation à résidence parce que un juge moom moo koy ordonné kenn xamul ci ban situation judiciaire juridique la la la la nekk alors. mbir moom ñenn ñi waa pouvoir dañ naan au nom de la défense nationale des dispositions sont prises euh, moo tax ñu ñu ñu barricadé buntu këram situation bi ban situation la. Euh, ñenn ñooy waa pouvoir lan mooy waa pouvoir bi. xanaa man waa pouvoir laa bokk nee la kii sama xarit la sama rakk la sama waay la. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk actuellement dans le système je veux je je dire. pour pour s'en système bi laa bokk ñun ñëpp système lañu bokk yow ah, si bokk. ñun ah. ñëpp sañu bokk. non ñi nekk ci bi neen ah. ay nit. non c'est important nga préciser parce que ñoom ñooy tenir discours boobu. non ñoom ñoo naan neel ay nit. c'est au nom de la sécurité et de la et de la défense nationale la ñu jël disposition ñoom xamuñu luy sécurité nga baal ma euh, man li ma bugg wax mooy li ma bañ fi ma nekk nii li ma bëggul mu sax ci Sénégal gii mooy cette dualité waa pouvoir bi opposition bi avec violence. kii ne kii ne waaw ñun. Eh, l'état de droit yi faut que l'état reste fort c'est quoi il faut l'état reste fort waxu waxu caaxaan la loolu c'est quoi un état fort waxu caaxaan un état est par définition fort état par définition il est fort par rapport ak yow par rapport ak man koo xam ne mën nga ne alkaati jugal wax nga ne mën nga ne gendarme jugal mën nga ne soldat jugal nga naan kooku foorul kuy xalaat xanaa dof rek kay xalaat loolu maa ngi gis ay seen bindu dof yi ñuy bind si journaux il faut un état fort il faut protéger la République il faut protéger la démocratie alors les les élections américaines Joe Biden et Donald Trump quand des personnes ont envahi le Capitole le, le Capitole euh, est-ce que l'Amérique a dit la démocratie tombe la République américaine est finie mais l'armée les les gardes républicaines ont fait leur travail ont arrêté ce qu'ils doivent arrêter ont dispersé les foules ont ouvert des enquêtes et puis c'est oublié après ku nekk yóbbu nañ la fa ne yóbbu def la ñuy def fàtte nañ ko bu yàgg dëgg wala dëgg depuis combien d'années la France les rues de France sont dans l'insécurité xam nga depuis combien d'années avec les gilets jaunes depuis que les gilets jaunes ont commencé et maintenant les grèves sur les retraites alors oh les gilets jaunes avec les grèves sur les retraites ça fait quatre cinq ans chaque week ñu toj France xam nga lu tax ñu koy toj les black blocs sàcce yi wuyu yi ñoo si rax alkaati yi xam nañ ko gendarme yi xam nañ ko dañuy prévoir loolu ñuy toj magasin yi di sàcc di kii combien d'années dégg nga France ñu naan la république est tombée la démocratie n'existe plus mais ça c'est de la vie publique l'armée est là la police est là la gendarmerie est là nga def ñu dóor la tëj la génn la nga jël say bagages dem sa yoon bu léegi doo ko defati jeex na point bu ñu terroriser sunu état bi dara amu fi loo xam ne mën na tax ñu naan la menace pour la république la menace pour la démocratie le ceci le cela ils peur pourquoi peur de quoi maa ngi nii ñëw fii si guddi gi lan la kan moom mën a tiital si lëndëm gi man may dox ba nekk xale dama naan dox ba wakaam du si mango si tool yi ñibbi si guddi gi <laughs> yenu samay saaku mango tey may dox sama dëkk ñu naan demoo république démocratie kay nañu xam république ak démocratie il faut pas qu'il nous fasse peur l'état est fort l'état est l'état ku def la mu warul def état bi diggaale ko yow bu jeexee ñu fàtte la nga ñibbi tous les états fonctionnent comme ça dans tous les pays il y a du trouble bu trouble amee ñu faj ko nanu xalaat liggéey je passe ma vie à le dire doxal ndakaaru bu ci 30 degré 39 degré ngay dox digg Dakar doo gis garab boo boo nekk ci suufam xam ngeen loolu muy mujj andi le Sénégal sera un pays désertique dans